na dëgg la man man maa nekkoon garde corps directeur Lamantin Beach bi nekk hôtel Lamantin Beach waaw. ah bon waaw waaye maa nekkoon garde corps directeur Lamantin Beach amoon na problème ak Ligue Nicola man fa nekk liggéey naa ak moom huit ans. très bien waaw ah, Idriss Idriss bi muy sàmm espoir bi espoir. Mhm. ay million keroog laay doo gis million ko gëm yàlla ko ndax wax du julli moom xoolal du ko raw Idriss Seck Hanifa Idrissa Seck moo ko doon doxal. Idrissa Seck moo ko doon jël. moo doon doxal directrice Lamantey Bis directeur Lamantey Bis mu ngi tudd Khadija mu ngi dëkk mu ngi dëkkoon ci chambre sud ka sud numéro 10 Idrissa Seck fu mu mën a ñëw foofu day loué neuf Dakar ak moom di doxandoog moom guddi si côté plage bi. léegi nag moom xam nga bu bëgg a nekk xam sunu sunu njiitu réew ka gouvernement quoi sunu njiitu gouvernement. kon kay dañuy jël ci suuf ñii di naan Ousmane Sonko kii kii kon ñoom dañuy jël ci suuf xale yi. soof soof na benn boobu tudd Fatou sax doon soof Fatou waaw Fatou moo ko jëlee ko suñu ko liggéey. lay wax ni. lu leer laa lay wax ni dama ne la gars yi xam nga dara barki alxuraan képp kuy nit rek yàlla am lu muy Sonko li koy defar dara amu ci du dëgg Sonko leen gën foofu ñoom ñëpp dañuy sóob ba pare ma xamal Aliou Sall rek Macky Sall duggee ci hôtel Lamantin fa lay joxante rendez-vous waaw V8 bu du fa gëj joxante ak ay nit ay tubaab nii du fa gëj weekend mu fa yàq suñu xaalis ñu ñëpp a yàq ay dóor lañ ay dóor ko de martu lañ waaw barke Alxuraan karim leer laa lay a ñëw hôtel doog a ñëw fii fii euh, Italie maa ngi Italie mais dama ne la nit ñi ko gis muy wax nii rek xoolal mu ngi def weng mu ne mu ngi def bu la bon la Idrissa Seck ma kàccoor la man kay maa gis teg sama bët yow booy ndaw rek lay jël booy rek lay jël bandi la waaw man kay bandi bu mag la ci dara Seydou million ci palaatu ci espace teg ay briques million million di ko teg nii ma teg teg sama bët boobu mu ngi ànd ak beneen doomam bu tudd Sidi waaw si Sidi sax laa rus moo tax ñu bëri sax bëgg ma ko wax ndax Sidi boobu xam nga ne sax dafa nekk boobu yëpp mais Macky moom kàccoor la moom waaw waaw moom day day tër rek moom waaw. du leer laa lay wax ñoom ñëpp suñu alal la ñuy fawee ñoom ñëpp suñu xaalis la ñuy fawee waaw am na ay procureur yoo xam ne su ma la waxoon suñu tur dafa lay toog naan ay naan naan waaye naan waaye ay procureur de la république ñu nekk suñu biir gouvernement boo ñëwee boo ñëwee tribunal fekkal ñu toog nii soo seen yëre nii seen seen yëre nga jox leen ceeb dañuy toog o di naan ba mandi ba fanaane a may toog di wax ak ñoom waaw. ci parce que afran loolu dafa lay wax. gars yi formation lañ. waaw dama ne la gars yi gëmuñu dama ne gëm nañu gëm nañu yàlla dañuy soof dañu gëmuñu yàlla ay formation la ñu ñëpp a yem gëmuñu dara waaw tegal dil tegal deg dil ñu si bëri dañuy tegal deg dil xool ak deux heures hôtel yi wala deux heures hôtel yi loolu neex dañuy dem dañuy liggéeyal ay nit lan neex wala ñu gis benn boy bu mool ñu jël la siif la xool xoolal laal la nga yëgal la biir du nga di xoolal dóor la dañu wax si yooyu. yow gis naa sama bët yow boo jël sama wax la tur ak wax la tur wax la tur wax la tur wax la tur. non waaw ak directeur yi directeur yi centre centre procureur yi ay xale yi moo ay ay boy ndaw ay xale yu ndaw di leen centre say emploi nga leen di centre ay procureur pour ñuy soos pour yow nga xam ne yow loo neex ngay def doo am benn problème doo am benn jafe-jafe. naa leen xam nga am fa nga dañ ne la yoo xam nga gëmal nga gëm bëgg li nga nga ñëw fi nga yàq sa nga loolu ngay gëmloo mais bu nga dañ Sénégal kañ lay kañ lay Sénégal kañ lay baax. wallaay defal képp kuy muur muur di liggéey yow ne Sénégal métti na neex la koy yëg ndax dañ lay problème képp kuy joxe dépense képp kuy liggéey yow kaay yow da ngay joxe dépense chaque fin du mois sa gàlle kon ñu muur muur dañu war a te saa biir yow xoolal yow murmur yi sax murmur yi ñoo gën a am doole sax biir Sénégal te ñoom ñu ngi Europe ñoo gën a am doole sax biir Sénégal que Sénégal yi fay dund. waay. parce que fii xam nga lépp lu Sénégal yi tey jii xam nga tey jii sax di xam sax murmur moo koy wax moo nekk fi di ko xam. man samay rak samay frère maa leen di wax lépp luy dund lépp luy xaw ñu am ne yow mais nu mu demee noonu maa ngi leen expliqué lépp nu mu fa demee. oui oui. waaw keroog nag yaa ngi wax gars yi ñu ngi joxe ay ay ay siiw réew garaaw xam nga ay gars yi ray sipet xam nga waaw xam nga ci biir palais bi noonu yaa ko gën a xam. ah waaw affaire affaire yooyu noonu xam nga non man non xaw wax gis nga gars yi gis yi nga gis noonu yi ay deew deew deew nañ ko ay ay kilo la yow xam nga yow yow yow yow yow Macky Sall ni nguur du bàyyi Macky Sall nguur gi jaral na ko lu ne maa la wax lii waaw jaral na ko lu ne tey jii nga laal na fee ñu wax mu laal fee ñu wax mu laal kil ba nga ba kan lañ kil te am na ànd ak booy ji ne léegi instant yii ñoom ñëpp loolu la ñu ngi lay déglu. oui lu dara lay wax waaw man daal maa ngi lay jaajëfal. waaw di la wax rang muy xala rang muy a yow foog nga ñëwaat. yow léegi da ngay bàyyi nii ma jëlaat gars yi nii mais ñëwaat ah. damay ñëwaat. waaw nga laaj ma posé ma question ma wax la. waaw waaw waaw damaa sàll moom dugal la ma ndeyam bi. interview sec jàng la la lamanteel bis xarisa soxna xarisa xarisa dëkk dëkk ci sini fi gën a seer numéro 10 Idrissa Seck bu ñëwee numéro 9 a luyee jàkkaarloog moom. bu guddee muy doxan muy doxandoog moom ci côté place bi guddi muy doxandoog moom ci place bi waaw léegi sax xarisa léegi sax am na jëkkër ndax ay mi xarisa nangu ko ay millions la soxla ay briques la ay briques la daanu si moom. non naar boobu xarisa boobu naar la mën a génn naan Baay Faal yow ñii sunu xaalis dañu ko sàcc Baay Faal dañu ko sàcc keroog laay doo gis ay million birig million espoir maa dugg ci kaw taabal ay birig ay million waaw di wane ne mooy chef waaw te lu leer laa lay wax waaw merci beaucoup kon ñoom tey ñoom tey Idrissa Seck moo teg ay birig ci kaw taabal man ma koy teg sama bët ay birig waaw bu pare di doxaan di doxaan directrice bi la man de di ñëw di restaurant restaurant mu toog teg directrice bi teg table yu jàkkaarloo nii restaurant di reer mu sol yére bu weex ni yére olof bu weex la sol fa weex tan toog nii restaurant di reer nii dañu duma ko toppatoo ma ko waaw waaw man dakoon gaa ko directeur lamanday bi sa pare man dakoon professeur fitness santé sport maa fa nekkoon professionnel santé sport maa fa maa fa nekkoon professeur santé sport bi ba pare en même temps maa leen def euh, spectacle chaque vendredi si guddi ak samedi si guddi waaw si kanamu si kanamu client yi devant les clients man Aliou Sall man Aliou Sall dëkk Aliou Sall rek rek rek rek ma ne ko yàgg ma ne ko yow tax yow dañoo Sall ñëwal Sall ci bët te sa biir bi nii quoi mais xam nga xaw naa mel xam si xam na xaw naa mel quoi si parce que dama ñëw man man man man man man man dama complexe dama ñëw ne ko mais mais grand ñëwal Sall boobu ma ma toj sa biir bi ah, ah, ah, ak Mor Ngom Mor Ngom Mor Ngom di ko fa la ñuy ñëw di wala di sakkat nay sunu yaa ngi yaa ngi yoole Birima c'est très bien ku bon la. bagage di dóor a i bagage ay procureur yu toog di naan seen naan waaw. ñu naas bu ñu demee bu ñu xawee dem tribunal xool tribunal àtte parce que sëñ naa xam nga procureur yu koy lijjanti nii gàll ñu ngi lijjanti ay gàll nii waaw mais man kenn du ma ci wóoloo ba ma ci wóoloo gàll xoolal waaye ma lu tëj saa yow. góor jigéen nag ma ñëwaat si góor jigéen ñi quoi ba mu mayee temps ma ñëwaat la si dëgg. mais frère yow yaa moom exclusivité bi tey bismillah. voilà ma jox la ci la góor jigéen yi la man daa la man daa la ñuy dal ku ci mel ni Diadji Diouf Diadji Diouf. moom defe naa sax moom mooy seefu góor jigéen yi moom Diadji Diouf boobu. te pourtant am na benn année boo xamante ne yóbbu na jabaram màkk yóbbu yaayam màkk xool loolu rek. benn année boo xamante ne moo moo jabaram jabar ak yaayam ñoo ànd dem màkk. si mais man de li nga xam ne góor jigéen la man dafa naan doxaan quoi man dafa naan doxaan xam nga man macha allah koo xam dama dama entraîné xam nga nekk sama forme xam nga yaa ma gën a xam xam nga vraiment boobu naa si jëndal benn instant macha allah xam nga. waaw ba pare sama xol naa yëpp man gëm baaraay si nekk laayaan nag ba pare nag nekk murit nekk tijaan nag ñu ñëpp benn lañ ñu ñëpp fa yàlla lañ jógee fa yàlla lañ jógee waaw jox naa ñëpp ci pare nag man nag xam nga dafa nekk nit ku baax ba pare man Sénégal ndax man damay def ndax sama famille dañuy sonn dafa ba pare nag man dama juddoo ko fan sañ boo xam ne dañoo néew doole xam ba xam nga mën naa ko wax ay mouvement ma wan ko ay mouvement yu baax mu kontaan génne vingt minutes may ma man eh vingt minutes waaw mu may ma te su ma soog mu ñëwaat ma dóor ko mu ne ma ndax yow da ngay def massage quoi ma ne ko si damay def massage waaw mu ne ma naa ko defal massage quoi ñaata la ma ne ko non man dama fayee ko quoi man comme client yi damay defar damay defar étirement rek quoi amul problème léegi mu ne ma léegi garaaw du mën nga ma dóoraat massage quoi sama chambre quoi ma ne ko non mais ñun amuñu droit donc ñun dugg si chambre yi quoi xam nga waaw xam nga yow nga woo ñu xam ne yaa ñu woo yaa soxla dara nga ñëw mu ne ma amul problème l'islam, c'est un représentant de l'islam. Nous pouvons dire, ah, kilifa la kilifa la quoi billahi wallahi taala man a yaa a kilifa la mu ngi jàpp mu ngi jàpp mu ngi jàpp diine màkk ci tale tale mu ngi jàpp màkk di diine nii a nag a kii kilifa la ma door ko madas naa madas bi jeex mu gën a trente mille may ma bi ma génnee dama génnee cinq mille jox ko seex benn agent sécurité bu nekkoon la man day seex waaw moom booy ma may ko cinq mu ne ma léegi ñu tawa mu ñëwaat dafa bëgg dafa bëgg euh, massage quoi yow Isaaxa man da man neex quoi mu ne ko looy grand yow borom baax nga mu ne ko man tamit neex nga ma trop vraiment bilaay mais yàlla mooy def loolu quoi yow borom baax nga waaw yaa ngi ñëw sall xam nga xamoo mais vraiment yaa ngi may may sa xaalis waaw yar états unis dem di di dem di ñëw te boobu barki Seydina Mouhamed xool maa ngi sonn maa ngi job di fayal ko weer cent mille franc laa am weer cent mille franc hôtel xool li muy li may liggéey trois liggéey yëpp cent mille franc laay fayal. gàllankoor ko directeur professeur de finance salle de sport ba pare spectacle vendredi samedi di fayal ko cent mille franc laa leen fayal ko te boobu xool cent mille franc rek su ma fayal ko nii rek jënd si jënd si seen xool sama yaay ñaari saako ceeb rek. soxla nekk si sama liste otoom otoom parce que sëñ bi naan xam ne dara ñoo laman day jox ma caabi ma ne góor ma dara am ndax ma góor jigéen boo lekkee juróomi dërëmam rek nga xam ko xam ko lekk juróomi dërëmam boo ci gàbbee doo wér. <laughs> c'est clair. góor jigéen góor jigéen bu la mayee cent millions laa wax nii nga lekk nga nga lekk ci rek jamono jot na boo ci feebaree doo wér doo doo wér waaw ñun xam nga ñun ñun dañoo si bu may taal bay laay man nga may nopp man man nga may nopp man naa xam nga jël loo xam ne teg sama wér moo ko bless dama fël loxo bi waaw na ko grand man lii xool xool du ma mën yaa man lii xaw ma ko de man ko la bett nga ma tarap nag yaa kati kati yaa yow dinaa la oto dinaa la jox naa jox naa la yaayam mu invité ma këram Dakar barki Seydina mu yónnee ma xaalis ma ne ko moom mu yónnee xaalis ma ko laal barki Seydina Mohamed mu yónnee ma xaalis taxi mu jóge nday Sali mu jóge Sali dem Dakar këram damaa aju barki Seydina Mohamed waaw te aju ak gëm sama bopp rek tey jii maa ngi Europe ma di Italie sax xaw ma amaana say loolu su ma ko nangu kon xoolal tey maa ngi sa jaay sama ngor jaay sama jaay sama papa suba war naa lu sax man su may toog xam nga imaam yi sax yow sax ñuy xutba sax damaa war a sëkk man dama war a sëkk waruma sëkki man mi nga xamante ne man ci bi bay sonn sonn dëgg dëgg dëgg sonn dëgg yoof jàmmalaay benn moodu moodu nii kàr kàr benn moodu moodu bu ñëw foofu jàng yi neex bu daanu ay fanam woote ay fanam woote ay fan ma dëggee dina xam maa far ay fan ay fan bi ma ko foree trois jours quatre jours moom mu woore te boobu la gën a dëgër comme maa ngi Sénégal tukkiwuma xaw ma sax ndax naa tukki parce que sëñ naa Mouhamed deux jours bi ñu doyee maa ngi moom ma jox ko téléphone bi mu ñaanal ma ñaan yu métti ñaan yu neex te boobu yàlla ndax de yàlla dogal na man di waaj a jóge Italie daa fay dem kon man xam nga du ma dugg ci affaire góor jigéen yooyu quoi parce que man man man man naka jekk man ñalaa mu sa mel man dama nature parce que gëm sama bopp gëm yàlla gëm yonent bi man man doo doo fréquenté sax ñu añu Aliou Sall la ñëpp ne du ma leen fréquenté waaw benn procureur la laaj leen benn procureur waaw te moom moom naa la jox turam ak santam yëpp te day toog arrêté arrêté day plaidé waaw. mais hmm? magistrat yu toog di naan seen doyen biir lamentaire bi lu leer laa lay wax du ma waxal man maa wax la man la wax loolu. non Fred yow kay yow yow kay lépp li nga fi wax dafa leer nañ kay loolu kenn mënu koo. waaw damaa la gars a ñu jox boobu nag tey jii tey maa ngi dégg ñu ne moom lañ fal sax ba may ba may président président xam Thiès pass ci permis ah joxe ci avance pass pass ci permis mhm. te permis boobu xolo permis boobu génn na mais bi xamee ne saa yu góor jigéen parce que Seydina Mouhamed dawaruma ci permis permis bi dawaruma ci bilaay dawaruma ci permis mais xam da ngaa génn da ngaa génn permis da ngaa génn maase naa ko nag waaw mais dama sant yàlla bi ma xamee bi ko teelee xam ndax mën naa fréquenté mu naa ma ñëw sama Dakar su ma xamoon loolu moom yaayam ak jabaram màkka il fi demoon Dakar il fi demoon Sénégal man Dakar ba mu ñëw këram ma ne ko garaan ñëwuma dafa ma waat bloqué numéro bi bloqué ko maa ko bloqué man jaay Diouf waaw mais ñoom nag duñ bàyyi dañuy topp nag di xam koy nekk man man de xaw ma ñoom dañoo am ay sëriñ xaw ma fekk la foo nekk bilaay fekk la foo nekk gars Dakar sali ba Dakar yow sali ba Dakar waaw dama Dakar formation moom bu yow ko ne sans formation ma retourné waat lamandaay bi sama liggéey maa jaa ba yàlla ñoo xewal waaw nit baax gis ma wóolu ma xam ne man ne bañkat laa xam ne man jobkat laa man si tubaab bu jigéen rek tubaab bu jigéen rek nii rek moo ñëw odel lamandaay ànd ak jëkkëram bàyyi man bëgg bëgg ma xamu ci kaan yi maa gore anaa ko man man di topp ko jigéen man jigéen journaliste française ànd ak ñëw barrema waaw jigéen bu dëkk Belgique ñëw barrema yëpp dama ba a man jullit laa man maa am carrément xam nga man xam nga ñun ay musulman a ñun boo bëggee ñu seexal dara dañ lay takk si a takk sunna Muhammad waaw buñ la takkul duñ seexal dara man man man man dèjà man ma ñàkk naa cinq tubaab yoo xamante ne ni loolu loolu ma séparé a ñoom ah. Mhm. parce que man dama ne man xam nga dama takk dama def dara quoi parce que man jullit laa waaw soo bëggee nag ma takk su ma takkee waaw ñu def dara quoi. Mhm. yàlla dafa mas ba ci cinquième tubaab dafa nangu takk ma takk ko si laa ñëw fii Italie. ndeysaan. waaw bëgg naa waaw xam nga ma ne ko noonu nag man dama saaga ndeyam te bu ma fekkoon du hôtel la fekkoon ne du hôtel damay rey de. sama liggéey non sama liggéey laay bëgg ñàkk fekk moom xamuñu ne xamuñu dañoo sonn xam nga mooy fayagu di di jox sa ko dal wala sa yaay añ ba suur ne la ah doy def man heure bu ñu añee heure bu ñu añee ba pare ñu lay ñaan bi daal sama yaay ba suur rek su dee bañ ñàkk sa liggéey parce que hôtel la ma dee ba boo waxee sa sa sa dëgg dëgg saxab docteur bi dàq la waaw. waaw. bi dàq la ma ne la man si Amar laa njëkk a nekk nag si Amar may jógee si Amar laa jógee dem directement nekk gàllankoor directeur la ma tey bis. waaw si Amar moom jabar moomu dàq ma ne Amar moomu dàq jabar waaw. waaw te foofu tamit xam nga am na ay kilifa yu bëri yu ñëw di dóor seex dóor seex tey jii seex daanu na ñun ñëpp bàyyi nañ ko te ñun ñëpp ñun ñëpp ñu ngi ci gouvernement xool Macky Sall maa ah dóor yi dóor yi métti sax yu neex. maam